donc Adja normalement fii sa kër la suma jarbaat nga suma sœur nga donc on te souhaite la bienvenue fii sa kër la ñun on va travailler ensemble la main dans la main vraiment tu fii une de la culture man ak yow vraiment dañu bëgg a yóbbu Grand Théâtre foo xam ne au-delà que ni nga ko fekkee donc aussi de remercier le ministre de la culture ak le président de la République Voilà, euh, les premières impressions, toujours que mes mots, ce seront, très, ce seront d'abord des mots de remerciement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, euh, de la confiance renouvelée. Et j'associe à ces remerciements le, le, ministre de la Culture et de la Communication qui a bien voulu emporter la proposition auprès du chef de l'État. Euh, Macky aussi dit, c'est mon frère, c'est mon oncle, je l'ai fait ici au Grand li may wax rek c'est un challenge mais c'est un challenge commun qu'on va prendre à cœur mais en cœur aussi donc euh, bi may egsee aussi tijjeeku laa gis yaatal laa gis jàmm laa gis et y pas de raison pour que ça ne se passe bien incha allah rabbi ça se passera très bien on travaillera en toute synergie euh, pour que li nga xam ne moo kóolute gi gi ñu am ci ñun dénk ñu ko yaakaar gi ñu am ci ñun pour que Grand Théâtre dem fu sore sore sore yaakaar googu incha allah rabbi dañuy ñaan yàlla mu dëgëral ñu kattanal ñu ba ñu ànd la main dans la main liggéey ko te ñëpp fekkee kenn bañ a manqué. défi yi c'est c'est c'est d'en faire un lieu incontournable parce que c'est un lieu de théâtre comme on dit c'est un lieu de théâtre il est temps que comme je l'ai dit les hommes de théâtre il est temps qu'ils ko moom le grand théâtre ne sera que ce qu'ils voudront en faire inchallah rabbi et comme je l'ai dit tout à l'heure avec Keïsi on ira même au-delà du Sénégal on ira voir d'autres partenaires d'autres pays voir ce qui de belles choses.